qui accompagne accompagner le mouvement dénommé M10 mouvement démocratique pour le développement intégral du Sénégal dirigé par euh, Samba et le maire de Ndofane DG Sirn donc euh, di content trop ci formation bi nga xamné ne les femmes de Thiès parce que vraiment bon formation bi amna 150 femmes ont été formées en deux jours euh, qui est transformation fruits et légumes ci céréales fabrication eau de javel avec savon donc euh, formation boobu les femmes sont autonomes et elles sont maintenant productives de ce fait on va les accompagner en termes de financement pour que ces femmes là vraiment jouent cette jouer partition ci développement la région de Thiès avec développement Sénégal donc M10 le mouvement de développement intégral moo tax comme le président Sama Ndiaye ni développement intégral le nivellement par le par le haut c'est-à-dire développement bi développement a à travers tout le Sénégal nous sommes le suñu créneau mouvement bi nag li Sénégal à travers vraiment des des projets structurants mais inclusifs Nous nga déjà le bi de ngi alors nous avons fait fi slogan sax jamono yooyu bu pour ko internet PUDC M10 même combat ci wàllu affaire éducation aussi D'ao, on a offert des dons valeur 12 millions à deux écoles les plus démunies du Sénégal Ben bi région Diourbel ñu koy wax Gàppu bi ci euh, région de euh, département de Mbour ñu koy wax Baat offrir na leen ay cahier ay livres valeur 12 millions ba tax na daaw jënduñu fourniture scolaire ren jënduñu fourniture fourniture scolaire te dafa impacter positivement ci résultats donc ñun non nañuy politiquer suñu politique nag ñun M10

pratiquement nous avons démarré ak 100 000 francs tay nous démé sen caisse biñu produire rek déjà am 175 000 déjà kenn ku ci déjà dinañ la financer individuellement ngay produire ce que mais du mais dinañ leen accompagner ci centrale d'achat au niveau de la région de Thiès nous avons un grand magasin pour xamné lepp lépp produire fofu lañ plus tard ñu organiser ay foire ñu mëna ce pousser sénégalais ñu consommer consommer sénégalais donc euh, loolu moo nekkoon wax dëgg. Euh, importance formation parce que formation mom moy lépp ndax jigéen ñu bëri ñu ngi leen di financer ñu am ay parce que formé wuñu leen mais ñun nak euh, mouvement démocratique pour le développement intégral du Sénégal formation nañu gëm bala ñoo jox kenn financement dañuy former ci comptabilité former la ci entrepreneuriat féminin ba nga mokal ñu soog la accompagner par des financements def nañ ko ak 150 femmes au niveau de l'école Ibrahima Jacques Gueye dinañ ko def aussi au niveau de la zone nord avec nos responsables yi FANEC, Wamid waa Medina nous avons aussi avec les responsables de Jaxaw bu ko dans chaque zone nous avons fait une centrale d'achat après ñu créer un link pour xam déjà trois centrales d'achat de dañuy dañuy jàppalante une biir à tel enseigne que borom kër bu soxlaati ration jaratul ngay dem ci boutique yi wala ci magasin yi kon boog loolu moo nekkoon euh, euh, rôle M10 le mouvement qui a ne accompagner le président Macky Sall dans ces projets mais ak façon de faire ko parce que président Samba Ndiaye nous ñëpp xam c'est un maître exemplaire gis le président Macky Sall bi muy dem Nioro jaar na invité ko ci oto lolo ak ça veut dire que dañu am des relations avant ñu avant président Macky Sall di euh, au pouvoir ça veut dire que le Sénégal ku xas ba falu Sénégal est la le a parce que euh, li ñuy opposé au au Sénégal c'est parce si vous opposé wu des solutions alternatives mën nga critiquer ne mais nga indi à côté population mais s'opposer pour s'opposer ci M10 nous accompagnons le président de la République Macky à travers le PUDC à travers la CEMU à travers la bourse familiale à travers PUMA bi ngeen di aussi mu sénégalais ñu un logement décent c'est-à-dire euh, fexe village am ay kër à un moindre coût avec du matériel locaux déjà ñu ngi préparer un grand forum d'ici peu di nga ñu dégg ci télé yi à Dakar pour inviter les sénégalais ñu xalaat ci naka nañu def ba suñu mbokk kaw yi mën am ay kër yu baax à un moindre coût bu ko defee incendie bu amee wala ay intempéries wala daay bu ko defee jur gi ak seen alal ak seen dund mën a mucc ñun ci loolu noonu ñuy politiquer M10 noonu lay politiquer te développement intégral la gëm développement inclusif en épousant le plan Sénégal émergent le M10 moom pratiquement Thiès de ci ndaare ndax nous monté M10 au niveau national euh, hôtel Terrou un mois après nous avons monté M10 Thiès chambre de commerce je crois que y a ngi Présent présence Amad dans Dansokho autorité y a ngi La chambre de commerce dafa fait del ah ba am ñoo xam ne amuñu amuñu donc li ki M10 Thiès dafa doon acteur social doon syndicaliste di jëriñ waa Thiès avant muy nekk euh, responsable m donc loolu mu loolu mu ji loolu la ko waa Thiès fay si parce que doomu Thiès laa cees waaye gis nañ ne am amal naa lañu njëriñ sama koñ laa commencé nag parce que mooy base bi à Somme mais du tee action sociale yi may def law na cees parce que ñëpp xam nañu le BAC le bureau anti-chômage de Thiès moom mooy bureau boo xam ne man maa ko mettre en place di utal ndaw yi xëy chômeurs yi Nous xam nañu aussi l'insertion des enfants déscolarisés chaque année dans dugal ci école publique privée yi lu mat 50 élèves yoo xam fay donc ñooñu tey ñenn ñi ay étudiants nañu ñenn ñu ngi liggéey kon boog foofu ma féetee ndaw Thiès yi ak M10 représente ko fii ci région Thiès Thiès kon mouvement la un bon cadre d'expression un bon cadre de partage un bon cadre y a la démocratie qui imposé wul ken dara je vous invite à naa nga mouvement parce que mouvement la bo xamné accompagner le président parce que mouvement mouvement la bo xamné am ambition et nous voulons occuper plus tard hein, la station suprême moy le palais de la république inshallah